kay la meuble njëg yomb ba doo waxaale njëg gi yomb ba doo waxaale ko sagaale su bëggi lu mal sedih Armoire you nice lal ak setu yo ya lo fa jënd njëg bu yomb lañ lay jaay ndax njëg gi yomb dem ba melni dañ koy maayi amna tapi rouge amna tapi rouge amna tapi tapis rouge amna tapi tapis rouge amna tapi rouge amna tapi rouge amna tapi rouge jaay la meuble njëg gi yomb ba do waxale ndimbal njabot jaay la monte la ko sagale su bëggee lu demal seti armoire yu naay lal ak seetu jaay la meuble njëg gi yomb ba do waxale ndimbal njabot jaay la la ko sagale su lu demal seeti armoire yu nice lal ak seetu c'est la qualité la beauté accessibilité eh jox ma sa téléphone tax ma lay jox sama téléphone xam dafa am lu ci def looy nëbb ko amul lu muy nëbb dafa am waaye wax ma loo naa message bi nga envoyé bu ndaw damaa bëgg nga jox ma téléphone ma déglu ko. su ma bañee soo bañee nga génn sama nga génn ci biti. sii Sidan la kay. pourquoi ce changement. Talla yaa doon wax ñu am léegi. may casse sans cesse. ça se voit maintenant que yow mii am lu ñu wax ma lan la boo wax metti dof bi ngeen ma jàppee. que bu ndaw xale bu ndaw boo xamante ne amul dara dans la tête ba du réfléchir loolu ngeen ma jàppee yéen te loolu moo ma métti hmm, yow moo fas ma sa kanam may envoyé vocal dégloo gu ma ko sax ba supprimer message bi lan nga ma wax ci vocal bi dañoo sama loxo kan danga ko bëgg xam. bu guddee bu vingt une heure jotee nga fekk ma ci kaw terrasse bi vingt et une heure nag laa la wax dinaa la leeralal lépp ba mu leer naa ni ndax dégg nga Jaakoyole uutsemenek. Yow laa doon xaar. man loo may xaaree. yow est-ce que ça va. tey la sa bés. sëwroom gis saa bi di la xaar. kan ñu néegu bàjjen. ma sang la. waajal la. teraanga nga ma lebaloon te teraanga. teraanga rek a koy fay. na jiitoo sër naka ma bàyyam bu ndaw dama koy may baatam sër bu ndaw dara ma teg bii gàcce an sama yaay mu ngi ಅನಿಸಿರ್ವಿ मेहमान मैं इसे उठो में फोन तो वाला sëwru ma de géntoon naa ni lu mu yàgg yàgg yàgg xale bi dina xam lu xew mais yow moom defal ndànk rek gis nga baat bi mu lay ñaan bu ko mës ma ko fulla wax naa ba sonn mun dafay tas loolu moom si dara yaakaar naa ne nag gore naa bu mu jeex tàkk magam moo ko yërëmoon rek muy dañ koy nax nax ko à quel titre mu ñëw rek ba léegi ñëw ma la bu ndaw bi jànk dama ne la dama koy may baatam. sóor lan moo tax nga war a may bu ndaw baatam. parce que moom ma ñaan baat. lan nga ko def. ngeen ko def li mu mënoon yëpp def naa ko topp naa leen jusqu'au bout. ya maladie. Alors Fat Kine dama nga wax ak sa nous devons trouver trouver solution a baax mais n'oublie pas que le linge sale se lave en famille na fait avec. dégg sëw na nanga ko doon ñaan baat yow lan moo daal lan moo tax bu ne mbileem laccere nga ñaan baat parce que bàjjen sey bi deug lan ko bàjjen sëwlu bëgguma té man duma sey ak ku ma bëggul yow sëwru mo ne bëgg la sëwru waxu ko de man maa xam Raja premier cadeau bi nekul won pour man pour ñago la won bi nga da nga ma wo sa biir nek pour wax ak man ci le tonton mako dem fabriquer ay résultats lo xamné kenn xamul fan la ko jëlé ñew ne len dama febar ngeen gëm ko mu ne leen dal dafa grave bàjjen ngir gëm ko mu leen ñaari weer kese moo ma dese ci sama dund ngeen ni ah yërëm nañ ko nañ ko takkal sëwrum su deewee ñu delloo njaago jëkkëram <sighs> bàjjen man xam naa lépp bu ko weddina damaa bëggoon nga may ko ñaari fan rek mu xalaat waxtaan ak xelam waxtaan ak xolam. yàggul ndaw du ma ful man defuma ko dara et n'était pas mon choix ay mbokkam ñoo ne naa ko comprendre mu comprendre ba pare mu may déranger à quel titre à quel titre yaay booy. idan nan masu shi bilan rek na yin e. SLM na mai kabata eh yow sawru yow xanaa xamul ne àddina biir ñu ngi lay mbamb sa ñaari jabar yi nga takkandoo ci benn bés boo ci bëggee dolli nag fase kenn ci benn jour de mariage ñoom fa ñuy taxaw di wax yëpp est-ce que mën nga fa taxaw di weddi parce que boo moytuwul nag tës nga jëm ay way nañ ma yóbbu tës nañ ma yóbbu xalaas nañ ma sax yóbbu inspecteur des séries ah je m'en compte balance xanaa xamoo li may dund sama biir sëy man maa ko xam kenn xamu te nag mam mu weesatoo sa yaay moo lay sa ma boole lu ma neex ak lu ma naqati li may dund sama sëy man maa ko xam baax na. Eh, kaay waaye dama laa soxla. walaay waxal. comme toi. gis nga dama pour une fois. Je n'ai fulla pas fayda te n'ai lim ci duma ci xam ban problème ñu a problème góoru watal ban yi ak góor nga xamante ay voriel ñu ñu dara tay ak ëllëg. gis nga ay wóoru ban xaw wat chaise yooyu ko xam mooy ni ñi man xaw bu ndaw démb ci guddi waxtaan naa ak moom luy yàgg baatam nag bëgg nga may ko na ko may baatam da nga mayaale njaago baatam teew sax yaa ngi bëgg toj sama kër gi sonoon nga ñu yow nga bëgg waxoo ko fii xasan si yow ba léegi waxuloo ko bu dee problème bu ndaw moo tax ngay wax na sa xel dal bu indiwoon léegi ay seede ma libéré ko mais bu dee nag kaawu njaago elle me lèche te duma ko wax te yow mi di na ma koo tàmm. ah bon waaw mm-hmm. ah, man mii nag maa ngi koy lijjanti ba mu ne kat waaye su nga naan toog oh. bu rek bu doon yow. lan ngay def bu dee yore ñu njaago dafa feebar ñaaweel moo ko dese ñu indil la premier kado mu yaakaar moom lañ ko indil ndekete yow la est-ce que da tas yaakaaram effectivement su fekkoon ne man maa nekk ci position bi njaago nekk ni ngeen def nii noonu laay def dama tas yaakaaram mais njaago aussi instant yi su fekkoon na dafa nekk sama position man ni ma def noonu la njaago di def bàjjen sawru bëgguma dafa ma yërëm kese te wax dëgg yàlla sëy bi du sama sëy sëyu njaago la sëwr daf ma muñaloon ndax dafa jàppale sëy bi du durer comme que demee na nii dara jotuma alhamdulilah bàjjen ma génn ci moo gën kaay fii toog am sa bàjjan sa bàjjan daal mi ngi néeg bu ndaw jaate xeex xeex mhm. kan mooy xeex bu ndaw daal ndeke li ngeen ko doon def lépp xam na ko yëg na ko dégg na ko nee na nag day génn ci sëy ma ngay xataraayu du la ngeen doon complot rek complot bi këpp na seen kaw ñoom ak ma leen koo yéene ñoom moo xew

jaago man xam naa la de xam naa ne sa yërmande ci man dafa bëri lool moo waral nga bàyyi ma ci gis nga biñ la indilee premier cadeau jox sama bàjjan sama bàjjan juum foog ne man lañ ko indil daal di ma koy jox tonton maaku ñëw na la dama feebar ba deux mois moo ma dese ci sama dund damay dee njaago nga def sacrifice ngir man nga bàyyee ma loolu ndax ma dund moment de bonheur avant may dee njaago def ma lu rëy waaye loo moomul moomoo ko suuru bëgguma yow mii la bëgg njaago sëy bi du sama sëy sëy bi sa sëy la yow damaa bëgg nga dem sëy ko ak sëwru ba mu neex ngeen dund seen mbëggeel njaago delloo naa la sa sëy bi ci xol bu sedd guy bu ndaw kan moo la wax wax ji ki ma ko wax loolu lépp c'est pas important xam nga li leer mooy liñ ma wax dëgg la ndax bu du woon dëgg sama bàjjan dina weddi démb nag bàjjan tëdd na xam nga lu tax su ma tëddul woon ñu ne feesul moo tax mu daw ma sagal sama bopp nag njaago fi ne dara jotuma alhamdulillahi rabbil alamina bu leen insister waat ngir yàlla bu leen sonn mais sëy bii génne naa ci sama xel depuis démba bu leen sonn nag di insister di wax sama xel nekkatul ci sëy bi Jet Set, simplement waouh démb ci guddi nag tëdd naa xam nga lu tax ndax dama doon bañ ñu ne damaa daw ndax ma mais sëy bi génn naa ci sama xel di démb bu leen sonn di insister di wax sama xel nekkatul ci sëy bi gis nga bi ñu les premiers cadeaux jox ko sama bàjjan sama bàjjan juum foog ne man lañ ko indi daal di ma koy jox tonton maa ko ñëw na la dama feebar ba deux mois moo ma desee ci sama dund damay dee jaago nga def sacrifice ngir man nga bàyyi ma loolu ndax ma dund moment de bonheur avant may jaago def ma lu rëy waaye loolu moom moom moom suuru bëgguma yow mii la bëgg सौरू सौरू langal toogal. yaay woy mënuma toog te duma toog ñii dañ ma commencé yàpp ñii dañu soof lan mooy problème bi lan mooy problème bi. lan mooy def li problème ma arrangé la ñu may déranger voilà tey jii dëggu na nag seen neex benn naqari benn. soo damaa bëgg nga def ndànk te xam ne loolu yëpp du wax bu ndaw dafa tëdd démb fees dell danga nga koo war a jox njeganaay bu duun. xoolal dara laa ko joxul. da wax rek. dara laa ko joxul yaay booy kii dafa réew. li dinaa ko wàññi mën naa ko gën a réew mën naa ko rendre service rendre ma benn yoon service. dama ne gis nga jox bi moom force la ndax li nga jëlee ci moom moo ëpp lii li nga jox njaago moom nga koy jox. Yeah. Yaago? Ça va. Nada. C'est bon? Mën naa laa gis une minute. yow la yow yaa ko wax. mais yow lan moo tax nga xalaat ma ci mais ak ne yow lan tax lu ci gi rek nga mais bu yow kan la. mais Marc bu yow kan la yow loolu mooy sa preuve. Marc lu muy wax c'est vrai yéen ñaar laa seen démb ngeen wax jóge ci terrasse bi. et après ah est-ce que bu ndaw moom moo la wax ni man maa ko wax wala boog est-ce que yow da ngaa dégg man ma la man maa wax. wala danga ngaa fekkee fi ma koy waxe wala daa am kenn ku nu gis ñoom wax la ko gis nga fàkk ne xale bi da leen a nand bu yàgg bàyyi leen ci biir ngeen yaakaar ne da ngeen a muus fekk ay ngaaka ngeen nekk waaye bin leen waay yéen ndaw damaa bëggoon nga delloo si gis nga sëwul mi maa ko jur xam naa ko bu baax a baax laataa muy dugg ci yow xamula woon bëggula woon mais jamono jii ñu toll nii dangaa ferenku laay ci xolam bi te xam naa ni génn goo ci te nit nag bu amee ndam du ko tilimal yow tey sa bisu ndam la dangaa war a ndamu dangaa war a buloo ba mu neex moo gën nga nekk fii di ñaan ay baatat bu ko nit ñi déggee lan lañuy wax kii dafa sëy démb tas tey loo rafetul de jekkul jaaduwul ma sañoon daal yooyu iya yëpp nga jël ko nga teg ko ci suuf man it su ma sañoon doo toog fii di ma ñaan ndax kenn ñaanul yàlla ñu takk la samedi nga xëy divorce dimanche gis nga sëy bii sama mbégte la woon ma am jëkkër dama ko doon ñaan sama mbégte la woon mais olof njaay dafa lu mu wax dafa ne wéet gore wéetaliku gore mm-hmm. men jole sama yaay dafa ma jur sànni ma ci mbalit te terewul ba léegi maa ngi dund man dama judd doon mbalit te mbalit lu ko àdduna teg rek daf ko war a tegoo gis nga sëy bi man moom ma ko njaago moo ko moom kon nañ ko ko delloo ma ñaan la rek pour nga bañ ci sonnati mais wax dëgg mënatuma continuer gis nga njaago trop c'est trop trop c'est trop li nga ñaan bala na trop te à chaque fois su ma la ko mayee ay problème rek la may indil doy na quoi lépp loo ma ñaan su ma la ko mayee ay problème rek la may indil ay problème kese la may indil bu ndaw lan laa ko def lan laa ko def xam naa ne defoo ko dara moom aussi jàppalu la dara man xam naa bu ndaw day bañ rek ma gën koo gore yéen ñaan yep ñëpp man maa leen gën a gore man mi boole lu ma neex ak lu ma naqati ak ku ma nabul ku ma sentirul te lépp yow mii la góor kàddoom la am te bu ndaw bii ma gis su ma sàgganee ba mu napp ma du ma ko waxati lu ma def te man mi di wax yow góor sax du ma jiital waxtu ma la jigéen loolu lépp du ci am xoolal jox ma cinq cent mille ma jox ko ko ñu defalee ko ko est-ce que man dama problème joxe xaalis a am problème joxe xaalis te même bu dul dara dama ko doon teral dama ko doon teral ni ma la teralee moom moo yàkkamti mais lenn rek laa bëgg nga xam ko lenn rek laa bëgg nga xam ko bis bu ko yàlla too bis bu jume ba ñaan ma baat ci kanamu seede dama ko koy may ah dama ko koy may de duñ fa yegg duñ fa yegg jox ma cinq cent mille rek ma jox ko ko bu ndaw jigéen la jigéen bu meree dañ koy defal neexal ko danga maa mere yow dama laa mën a mere su ma ko jéemee sax du sotti merew ma la de baal ma de man ñu maa la tooñ nga ko bañoon à la fin gis ma jural yaa ngi nii di souffrir à cause de man Njaal tooñoo ma de ki ma jur ba pare jël ma sànni ma mbalit kooku moo wax naa la nga bàyyi wax jooju à chaque fois ma wax la ko gis nga fii kuy ñëw du ëndaale dara te booy dem tamit doo yóbbu dara bàyyi wax jooju def xoolal lii indi ma fi sa jëkkër la ma yónni gis nga enveloppe bi cinq cent mille moo ci nekk nee na kontaan la ci yow nee na sagal nga ko siggil nga ko faat ki ne yaakaar nga ne xale bi na jël xaalis dina ko jël bàyyi nañ ko am Il jàmm mu mu man de ne problème pas ñoom ñaar ñu ne si ni nga defee noonu la du man ñaari xale yi sax dañ maa jaaxal gore nañu torop man ba ma juddoo ci sama ndey sama baay ba tey mosumaa gis lii ak fi réew mi toll nga xam ne tin ngor amatu fi xale lañu nag sax nag kenn du ci mag. xam naa xiif nga de mënoo comprendre sax ni ma xiifee xam nga kañ laa gëj a lekk démb ci añ te gis nga ni ma añee damaa mos. bariwul kay <laughs> wasta xoolal démb dëggaloon naa la supp kooraay xaaral ma ñëw toggal la ko bàjjal sang la dàmp la <laughs> d'accord. maa du ma noo dontiwaat sama yaram. ati <laughs> eh, wuy ma. ani Sowru. suñu jëkkër mu ngi saal bi ma woon la ko. non ko doon laajte rek. d'accord ati Sara. ok. dal mi ngi ci biir saal ba dañ ca ba toog kañ dem nga ñaan ba tonto Marc man sama tanki day metti de dox bu baax moom wa wa nga ni lan kay ma soutenir la même bu jaree ma bot ma bot la wala ma ma tingoom la waye di nga jog tay tay tay tey dem ñaan ba kaa ñu dem nga ñaan ba dawal dugal dafa dafandul rek dafa ndànk bu demee rek ñaan ko baat teel mu jeex konte la ko sagale su bëggee lu nay demal seeti armoire yu nay lal ak seetu yow loo fa jënd njëg bu yomb lañ lay jaayi ndax njëg gi yomb dem ba mel ni dañ koy maayi am na tapis rouge am na tapis rouge am na tapis rouge am na tapis rouge am na tapis rouge am na tapis rouge am na tapis rouge jaay la njëg gi yomb ba doo ndimbal njabot jay la montel la ko sa su bëggee lu nay demal seti armoire yu nay lal ak seetu jay la bul njëg gi yomb ba do waxale ndimbal njabot jay la montel la ko sa su bëggee lu nay demal seti armoire yu nay lal ak Accessibilité. Jet 7, simplement waouh